benn message bu garaaw a garaaw bu benn mythomane benn xaj benn xaj chien xam nga chien de garde dafa am ak chien de chasse mais kii xaj la xaj la ñu koy wax Tunkara Tunkara il vit aux États-Unis nekkeewu fi lu dul te du Sénégalais de c'est un Gambien nekkeewu fi lu dul attaqué madame Faye Sall nekkeewu fi lu dul attaqué euh, Macky Sall léegi nag ñu lay attaqué les les journalistes de la presse sénégalaise xool leen Tunkara wax ju ñaaw ji mu wax wax ju bon ji mu wax xam nga ni kii bi mu juddoo nampul ci weenu yaayam kii bi mu juddoo kenn teegalu ko jongaluñ ko kii bi mu noonu la judduwaale ak sobeem moo tax foo ko fekk ci otoom lay toog di ñu ñàkkal fayda ñun di ñu dooleel man Leral TV la am fii lu ma fi wax àdduna yëg ko moo tax lépp lu may wax dama koy réfléchiraat voilà jox ma jox ma Tunkara la la la oh am nga chance ba tale laa nekk Pape Doudou mais mooy def explication bi Pape Doudou mais mook Tunkara ñooyam Pape Doudou moomu nag won ma ko jox ma Pape Doudou moomu xaj boobu jox ma xaj boobu mooy Tunkara journaliste journaliste yi ñu bari ay mercenaire lañu ñu Sall la ñuy liggéeyal yokkal journaliste bu leen jege molotov leen ko journaliste bu leen jege di leen filmer molotov leen ko journaliste bu leen tàllal micro molotov leen ko les vrais journalistes ne vont pas vous suivre pour filmer vos figures bu leen nangu jege benn journaliste les forces de l'ordre ont infiltré les journalistes les forces de l'ordre ont infiltré les journalistes n'acceptez pas de parler aux journalistes voilà pour muy leer Tounkara lu garaaw la wax yi nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy yor cocktail Molotov yi su ñu gisee journalistes yi di filmer nañ leen ko dóor nañ leen ko sànni ndaxte dañ leen infiltrer may wax ak képp kuy technicien kuy caméraman yor sa matériel képp kuy journaliste na nga def très attention ndax nag réew mi nag doy na waar léegi nag ñi ne ci Europe ba ñooy jaxase pour ñu ray presse bi di rey techniciens yi ça devient grave ñi nga xamante ne ñooy liggéey seen bopp nekk ci terrain bi jël leen seeni matuwaay may interpeller monsieur Antoine Diome di interpeller président de la république lii mu ngi jéggi dayoo te foo ko takk rek weesu na ko force de l'ordre yi lañ doon wax ñoom ñooy tiire ci kaw manifestants yi mais lii moom man musuma ko gis ci àdduna képp ku nga xamante ne yaa ngi wàcc ci terrain bi na def très attention vidéo bii ñoo ko dégg ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo xoolaat leen fu ngeen di teg seen tànk waxoon naa leen ci biir vidéo yi passé ne leen ñun ñoo nar a nekk agneau du sacrifice xool leen fi ngeen teg seen tànk bu baax ndax nag dëkk bi wóoratul te lii nii nag président lii moom da nga cee war a wax lii moom danga cee war a wax bu ñu demee bay menacer caméraman yi nekk ci terrain bi ça devient très très très très grave et nous l'accepterons pas Tunkara li nga wax tegoo ko fen te ça va te coûter très très très très cher billaay wallaay taalaay voilà ne toog États-Unis di di di di la presse euh, la presse merci beaucoup à toi Pape merci beaucoup merci beaucoup xool bu tàng moo tax xam nga defoon naa fi benn sorte ci sama télé Gouthia TV ci Tunkara moomu c'est pas un Sénégalais c'est pas un Sénégalais c'est Gambien saraxule Gambien bu bon la saraxule la mooy saraxule yooyu ñu abandonné seeni parents seen famille bi mu juddoo nampul si weenu yaayam dañ ko jàllax moom papaam reconnaître ko Tunkara moomu léegi alerté naa tous les caméramans et tous les journalistes ngeen gën a vigilant sur le terrain ma jël wax ji nag jox ko sama xarit Ismaïla jox Fall ministre de la justice protégel ma sama journaliste yi ak sama caméraman yi nekk sur le terrain Antoine Diome protégel leen ma parce que lu am rek yéen la ñuy jox toor bi président Macky Sall gënal protéger journaliste yi parce que ñoo la dooleel ñoo la fal ah am na ku nekk ci ligne bi jox ma ko voilà.